يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, mbokk yi dal leen ak jàmm ci suñu waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko tuddee taamulaat fi kitaabi taqdis al ashxaas fi l fikri suufi tey mooy bindu ñetteel bi Eh, laata ñuy dugg nag ci téere bi tey am na tuuti lu ñu bëgg a leeral ji wax ñépp ñi nga xam ne dañuy yónnee ay leetar ci suñu privé nga xam ne mënees na leen a xaaj ñetti xaaj Euh, mooy koo xam ne wax yu ñaaw rekk lay yónnee kooku moom lañ koy wax mooy amuñu jotam ak keneen koo xam ne day yónnee di wax lu tax waxu leen ci nàngam ba léegi kooka dañ koy wax ne ko yegsee guñu ci loola buñ si yegsee rekk daañ si wax bokk na ci ñu bari neema borom téere bi daa wax ne sufiyanke yi dañuy daganal takkante ci seen biit ay maxaarim bi maanaam nit ki mën a takk doomam mën a takk yaayam wala yu mel noonu mu ne borom téere bi daa wax loolu ci biir téere bi lu tax man tontuuma ci loolu ma koy wax rek ne ko muqaddima bi incha allah bu ñu paree muqaddima bi ci loolu lañ jëm directement leeral sos woowu nga xam ne dañ ko sosal borom téere bi waaye du waxam mu des ñi nga xam ne dañ may yónnee ay rad moo xam dañ koy tasaare feneen wala dañ koy def ci suma privé yooya daañ seet ña nga xam ne mandute moo leen tax a jóg ak bëgg lu leer ñooña incha allahu daañu leen yónnee ay radd ñoom itam yoo xam ne du aju ci biir darsu bi waaye dañ koy jagleel ay waxtaani boppam di wax nag ne comme dañu ne téere bi nangam moo ci nekk ñii ne téere bi baaxul ñii ne téere bi saaga la léegi am na ku ñëw pour leeral téere bi damay wax ñépp na leen nañ bàyyi ñu leeral téere bi su ko defee ñiy déglu tey topp ñoom daañ xam li nga xam ne dëgg la ak li nga xam ne ni nekkul dëgg kon kàddu googu rek lañ doon jiital incha allah su ko defee ñu daal di dugg ci darsu bi te jéggalu mbokk yi tey nag ñu ngi woon ci xawaayid yi nga xam ne borom téere bi tudd na ko xafidahullah wa raa si paasu ñeenteel bi la qawaid yooyu dalee bi si njëkk mooy at tafriqu bayn al qawli wa qaa'ilihi ràññeele diggante wax ak ki nga xam ne nii moom moo ko wax ndax wax mën naa doon loo xam ne kat lu ñaaw la ba yegg ci niveau veddi yàlla subhanahu wa taala te fekk ne ki nga xam ne moom moo ko wax du nekk koo xam ne nii ku weddi yàlla la wala sax du nekk nitu bidaa ngir am na ay mbir yoo xam ne day tere waa jooja melokaanoo melokaan boobu amaana sax wax ji mu wax nga xam ne weddi yàlla la wala bidaa la amaana moom wax jooja génn na sa laata muy faatu su fekkee ne génn na ca wax ja laata muy faatu kon nag wax ja moom warees na koo leeral ngir keneen bañ a tàbbi ca wax jooja nga xam ne kufru la wala wax jooja nga xam ne bidaa la ndax loola kat su amut ñu bàyyi fa wax ja noona rek am na kuy ñëw gannaawam koo xam ne su boobaa mën naa tàbbi ca wax jooja moo tax cheikh bi nee na fal muhaakamatu fi manhaji salaf innama takunu lil fikri asaasan laa li ashaabi al fikri al muayyaniin nee na manhaju salaf di seenu doxin ak seeni méthode ci àtte nit mooy du jëmmi waaja la ñuy àtte waaye xalaat ba la ñuy àtte ak wax ja nga xam ne nii moom la wax su ko defee bu fekkee ne wax ja kufru la ñu leeral na lii kufru la bu dee bidaa la ñu leeral na lii bidaa la waaje si boppam nag am na ay jëflante yoo xam ne moom lañ war a jëflante ak moom su ko defee yooyu mooy yi nga xam ne nii cheikh bi mu ngi koy leeral si comme nee na loolu joxe na si ay misaal ci juzul awal bi ci page 482 ak 483 yooyu yëpp di nga fa fekk misaal yooyu incha allah buñ fa àggee rek dana gën a leer beneen qaacida bi mooy laa takfiira wala tabdiica li mucayanin illa bi shurut maanaam nit ki dee su ko yéeféerloo wala di ko bidaaloo lu dul ay chart maanaam wax ji mën nañ ne wax sàngam kéeféer la mën nañ ne jëf sàngam kufru la ba tey mën nañ ne it wax sàngam bidaa la mën nañ ne jëf sàngam bidaa la waaye nag diw sàngam yéeféer la wala wax sàngam wala diw sàngam nitu bidaa la loola pour mu am daa am ay charte yoo xam ne dafa war a daje bi si njëkk mooy iqamatu lxujjati bi bayaani alxaqi lahu ala naxwin waadixin laysa fihi sheyun min algumuudi aw altaaqiid mooy waa ji dañoo war a taxawal ci moom aw lay leeralal ko ba mu leer nàññi yi nga xam ne lënt na ko wala mu doon yoo xam ne yu jafe la nga xam ne war naa mën a nekk baaraas buy taxaw ci kanamam loolu daañ ko ko war a leeralal ba mu leer nañ ñi laata ñuy àtte ne moom yéeféer la wala ñuy àtte ne moom niti bidaa la ñaareel bi mooy izalatu shubhati wa yakunu bi bayaani ma tazulu bi mislihi shubuhatu almumathila maanaam dindi lënt lënt bi nga xam ne mu ngi ci kanamu nit ki loolu nag bu ñu ko waxee mooy ci aada ku lënt-lënt sàngam dal suñu ko tegalee yu mel nii leeralal ko yu mel nii loola lënt-lënt yooya war nay génn ci bu su boobaa jubluwuñ si nag ne faaw waa ji ne ah man kat léegi nangu naa ne lii moom ay lënt-lënt la lënt-lënt yi génn na ndax loola lu jafe lay doon am na si ñoo xam ne kat si nit ñi seeni bànneex lañuy topp ak it roy loo xam ne dañ see fekkoon ay nit ñoo xam ne dañ leen di màggal mun na nekk seeni baay mun na nekk seeni maam di roy ñooña ak it bañ a bàyyi la ñooña nekkoon tolloog li alquran di wax ne wa ida qila lahum ittabiu ma anzala allah qaalu bal nattabiu ma alfayna alayhi abaana am na ñoo xam ne kat boo leen na leen kaa leen topp li borom bi tabaraka wa taala wàccee dañ la naan déet ñun kat la ñu fekkoon bàyyi ak maam ya loolu moom duñu ko bàyyi la ñu fekkoon bàyyi ak maam ya loola duñu ko bàyyi kon suñ ko tegalee loo xam ne daal ku ñu ko tegal war nay génnee ci moom ay lënt kon su boobaa suñu àll wa wàcce na ca moom gannaaw ga mën nañ koo jox xukumu shar'i moo xam nag dafa nuur dëgër bopp bañ na du bàyyi wala dafa topp bànnee xam wala yeneen mbir a ko jàpp ñaareel bi mooy alxuluwu min alxata'i dalika li ann alxataa maafuwun anhu fi shariati al islam ñaareel bi mooy fiix wala ñetteel bi mooy fiix ak set wecc ci njuumte ngir ne njuumte kat dañ ko jéggale ci lislaam nit mën naa wax wax joo xam ne weddi yàlla la waaye fekk daa juum nit mën naa wax wala mu jëf loo xam ne bidaa la waaye fekk njuumte moo ko ci tàbbal kon njuumte moom dañ ko jéggale ci sharia al islaamiya ñeenteel bi mooy alxuluwu min al ikrah di mucc ci force nit ki mën naa wax weddi yàlla fekk dañ ko see force nit ki mën naa jëf bidaa fekk dañ ko see force kon faaw ki ñuy àtte ne moom yéeféer la wala ñuy àtte ne moom nit yi bidaa la faaw mu mucc ci ñaar yooyu mucc ci njuumte mucc itam ci force ngir li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne inna allaha tajawaza an ummati alxataa wa nisyan wa mastukrihu alayhi yàlla kat jéggal na xeet wi jéggal na sumaw xeet njuumte wala fàtte wala loo xam ne dañ leen si force ak li borom bi tabaaraka wa taala wax ne illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ña muy tëkku génne na si ñi nga xam ne dañ leen a forcé waaye fekk seen biir xol soo ko ubbi woon da nga fay fekk ak gëm yàlla goo xam ne gu wér la gu dëgër la looloo tax borom téere bi mu ne lii moo tax doo fekk mukk ci téere bi yéeféerloo wala bidaaloo jëmm ju ñu ràññee joo xam ne aw lay taxawut fa salaf sa mag ña ñu daal di ko yéeféerloo wala ñu bidaaloo ko nee na su dee loola am na de booba laay dog a toxal seen wax su fekkee loolu amut nag amut kenn koo xam ne mën nañ koo cité ne mu ngi ci téere bi te borom téere bi daf ko yéeféerloo loolu moom dañ koy baamu di ko baamtuwaat ànd ak bërig ñi nga xam ne ñoom ñooy sos aka wax loo xam ne wérut aka coow-coow yu bari ànd ak loolu yëpp lii taxaddi la ci seen kanam amut kenn ku ñu tudd ci téere bi koo xam ne borom téere bi tudd na ne diw sàngam mii kat yéeféer la wala nit yi bidaa la lu mooy aw nit wu mu jamono wante woon tey boromi xam-xam ya ñooña ñoo site waaja ne diw sàngam kat yéeféer la su loolu amut amul kenn ku mu joxoñ baaraamam ci biir téere bi di wax ne moom yéeféer la rawatina nag magu réew mi rawatina magu réew mi nga xam ne bët bu set nga dégg ñu ne magi réew mi ci téere bi nangam magi réew mi ci téere bi nangam te ña koy wax mënuñ koo génne mënuñ see génne dara fii nag borom téere bi wax loo xam ne lu am solo la mu ne maa anni qad naqaltu min kalaami suufiyati maa laa yushakku fi kawnihi bidaan muxdatha wa fi kawni baadihi kufran sarixan mu ne ànd ak nag ne toxal naa ci biir tasawuf ci xalaat bii di xalaatu tasawuf toxal naa fa ay wax yoo xam ne koo xam ne am xelam wér na kooko moom du am sikki sàkk ci ne loola moom bidaa la am na it yenn wax yoo xam ne toxal naa ko jële ko ci biir xalaatu tasawuf am na sa yoo xam ne moom loola weddi yàlla la te itam sikki sàkk nekkut ca waaye ñun bu ñuy àttee borom téere bi bu ñuy àttee ñun la ñuy àtte mooy wax ja ak xalaat ba loolu la ñuy àtte amma jëmmu ja nag moom qad afda ila ma qaddam kooka moom dem na ci boromam boromam tabaaraka wa taala moo koy xisaab ñun lay suñ jubluwaay ca tudd loola mooy wattandekuloo nit ñi pour ñu tàbbi ci mbir yu mel noonu loolu mooy li nga xam ne ni moom moo ñu amal solo waaye des na ci moom ndax génnoon na sa wala génnut sa woon ndax faatu na sa wala faatuwut ci woon yooya moom des na ca boroom diggante mag boroomam tabaraka wa taala ba tey ñu ngi ci paasu juróomeel bi ci qawaa'id yooyu mooy adamu tafriqi fi lxukmi bayna al ashyaai almutalifa bayna al ashyaai almutalifati fi lxaqiqati waljawhar mooy bañ a teqale booy àtte si diggante ay mbir yoo xam ne benn lañ si dëgg-dëgg wuteewuñu mu ne ci kaw qaayida boobu looloo tax xalaat bii di xalaatu tasawuf nga xam ne si lañ bind téere bi nee na moom bu koy discuter di ko jàngat jàngatut ko pour ne xalaat bi xalaatu arab yi la wala xalaatu africain yi la wala xalaatu tariqa sàngam la wala xalaatu tariqa sàngam déedéet بل باعتباره فكرا صوفيا شرقيا كان أم غربيا ñun li ñuy seet mooy xalaat bi xalaatu tasawuf la maanaam ay sufiyanke ñoo ko doon wax bind ko ci seeni téere moo xam ñi ko bind sow lañ dëkkee wala penku lañ dëkkee ak fu ñu mën a dëkkee loolu nag li ñu siy jànge mooy ñi nga xam ne toujours dañ leen di dégg ñu naan nangam wax na ko ci téere bi te loolu fu mu nekk fii ci Sénégal ah waaw téere bi pour Sénégal rek la ma ne ndax téere bi pour Sénégal rek la wala ndax tasawuf sax moom pour Sénégal rek la wala ndax Sénégal lu ñu deful ci tasawuf rek bokkul ci tasawuf wala Sénégal lu ñu fasul ci tasawuf rek bokkul ci tasawuf wala borom téere bi moom dafa chartaal ne li may toxal ci xalaat ci tasawuf bu Sénégal bi rek laa soxla yéen tam nag mbokk yi téere bi ëpp na loolu téere bi ëpp na loolu téere bi day wax ak turaasu tasawuf maanaam ndonool tasawuf yeñ si jàpp ne manees na koo joxoñ baaraam ne nangam jiikat xalaat la mu ngi ci biir tasawuf waaye xalaat la boo xam ne war nañ koo seetaat téere bi looloo ko tax a jóg xalaat bu ba nag mën naa ne fii ci mën naa ne Sénégal mën naa ne Maroc mën naa ne fu nekk ci àdduna bi waaye duut ne Afrique rek la mën a ne wala Sénégal rek la mën a ne wala Asie rek la mën a ne wala feneen la mën a nekk déedéet li ñu jublu mooy turaasu suuf tasawuf moom lañ jublu ci téere bi moom la borom téere bi jublu looloo tax kon yow mii seet dara ci biir téere bi jukki ko ne ah nangam ji wax na ko te loolu gisuñ ko Sénégal borom téere bi tontu na la tontu bu leer a leer a leer mooy ñun ci turaasu tasawuf la ñuy wax nee na moom ci ndonool tasawuf lay wax waaye waxut ci li Sénégal di jëf waxut ci li dëkk sàngam itam di jëf kon loolu bàyyi ko xel am na solo lool beneen bi it am na ñu naan si téere bi kat dañ see wax ci tariqa nangam te waxuñ ci tariqa nangam te benn bu si nekk tariqa la ah waaw bu fekkee ne tariqa bële la fa ne ak li nekk ci tariqa bi benn la kon kay wax ji boole na leen ñoom ñëpp bu baax tudd seen tur ak ñàkk tudd seen tur taxul mu am njëriñ amul benn problème bu dee tudd nañ ko tudduñ ko su fekkee ne ñoom ñoo bokk lu ñuy def te mooy la leen boole mooy ak tasawuf ànd ak nag ne yeneen mbir mën naa tax. fekk na tariqa sàngam tudduñu leen ci téere bi lu mel ni seeni masaadir yi nga xam ne si lañ war a sukkandiku masaadir yooyu amut wala yeneen mbir yoo xam ne mën naa tax ñu ñàkk a tudd tariqa sàngam kon bu fekkee ne tariqa bii ak tariqa bale yépp li leen boole mooy tariqa tasawuf lañ maanaam yoon lañ ci tasawuf te it mbir yañ tudd ci tariqa bale mu ngi ci tariqa bale kon buñ leen boolee benn commentaire ñoom ñaar su boobaa loola tudd nañ yëpp rek kon ñi nga xam ne dañoo jàpp ne téere bi pour Sénégal rek la euh, nañ yëg ne téere bi euh, romb na euh, Sénégal rek kon ñu mottali fii rek balaa ñuy taxaw ba tey ci page juróomeel mooy kullun yuqadu min qawlihi wa yurad illa al maasum maanaam ku nekk am na lu ñuy jël ci waxam am na lu ñu koy delloo ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom téere bi nee na sukkandiku ci qaayida bu mag boobu looloo tax am na ñoo xam ne seeni xalaat ay njuumte mu ngi ci léeg-léeg waaye tontuwuñu leen lu tax ngir ne dañoo jàpp ne ñooña seen xalaat booba kat njuumte moo tax ñu tàbbi sa beneen ba am nañ ay taxawaay yoo xam ne yu am solo la ci wàllu daawa woote jëmale ci borom bi tabaraka wa taala ak dimbale li nga xam ne moom mooy diine lislaam bokk na itam ci qaayida boobu yi nga xam ne war na ko ëmbaale mooy ñu yaatal borom téere bi nee na mooy ñu yaatal képp koo xam ne daf ñuy laayee biir wala mu jubale ak critiquer si ñun critiquer goo xam ne bu tegu ci dëgg la ak it waxtaan ak it bëgg a yegg ci natiija boo xam ne bu am solo la àgg ci résultat boo xam ne bu am solo la mu ne loolu moo tax képp koo xam ne yónne nañu ay njuumte moo xam da koo bind yónnee ñu wala da koo wax ak ñun wala mu bëgg a waxtaan ci téere bi waxtaan boo xam ne débat ci boo xam ne day tegu ci xam-xam ak gëstu dëgg mucc ci jubluwaay yi nga xam ne yu suufee la nee na kooku moom su boobaa dañ koy ñaanal sax nag te di ko wax ne ko ñu ngi koy yaatal bu baax a baax ci xalaat boobu nga xam ne moom la am kon nag yii moo doon régal yi nga xam ne borom téere bi tudd na ko muy régal yoo xam ne yu am solo la nga xam ne ñu baree baree bari ñi nga xam ne dañoo foog ci téere bi loo xam ne nekkut si bu ñu dellu woon ci muqaddima bi rek su boobaa mbir yooyu day daal di leer si ñoom waaye xëy na ñu baree bari delluwuñ ci muqaddima bi waxuma laak sax ñuy ubbi téere bi di ko xool loolu moo tax ñu tàbbi ci ay njuumte wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu